waaye dina tax tam bu ñu fiy jógee ñu ne lii de tënk nañ ko nga xam ne dinañ ci liggéey ministère du travail fii ba déwén ñu xool yan jéego lañ ciy def loolu moo taxoon ñu ne de thème bi nga xam ne moom la euh, UNIFEM jàpp pour ñu war ci waxtaan ci àdduna bi ñun dañ ko méngale ak suñu ministère mooy jumtuwaay xarala yu bees yi lan la ñu may ak waaye lan moo ci loo xam ne mën na nekk ay safaan yoo xam ne war nañ ko moytu ñu dajale fi ñëpp nag wax dëgg yàlla Sénégal ñi nga xam ne am na leen ñu nekk ci ñëpp xam leen ñu nekk ci loolu waaye syndicat yi wante ñi nga xam ne ñooy joxe xëy bi ministère ak jigéen ñeeg ñëpp ñu waxtaan fi wan nañ ñu ci waxtaan bi lan nga xam ne jumtuwaay xalal yi mën nañu koo may mu jëmale ñu kanam waaye wan nañu également yi nga xam ne war nañ koo moytu nga xam ne du jur euh, ay lu ñuy gaañ ci jëfandiku bi. alors madame nga baal ma delluwaat tuuti ci li nga xamante ni congé nga xamante eh, waaw xam nga loolu moom dëgg la ñun jigéen ñi liggéey dangay boole sa liggéey ki ngay liggéeyal am lum la sas nga war a wàccoog sas yooyu ni sa naataangoo góor yi nga ñibbi ci kër gi am loo xam ne kër gi tam mu la fay xaar sa borom kër wala sa njaboot wala njaboot bu yaatu bi sas la ko. nga war a boole loolu yëpp xam nga dafay métti daanaka jigéen seen liggéey dafa métti donc loolu moo tax ñu ne digital bi ñun dinañu yombalal foofu ba nga xam ne liggéey bi dinañ fexe suñ defee télétravail nga mën a nangamu bës nga xëy nangamu bës nga toog ci kër gi def liggéey bi waaye également jigéen ñi nga xam ne dañuy ëmb di wasin loolu yàlla moo ñu ko jagleel wax dëgg yàlla ñu ciy sant yàlla parce que fanaa jigéen su fekkoon du ëmb du wasin kon dund du am ci kaw àdduna loolu nag waruñ ko jàppee comme feebar wala comme gàllankoor loolu lu ñu yàlla jagleel la ñu war ci sant yàlla ñu gis nag ñun jigéen ñi législation 14 semaine la ñu may pour bu ñu nekkee bu ñu ëmbee juróom benn semaines yi balaa ngay wasin juróom ñetti semaines yi boo wasinee ba pare waaye juróom ñetti semaines yooyu day tombé sa doom nekk ci état boo xam ne dafa fragile maanaam ñaari weer kese nga war a bàyyi sa doom ci kër gi ku nekk xam ne ñun lu ñuy dundee léegi suñu dundin dafa soppeeku bu njëkk dañ daan dund ci famille yu mag kër yu yaatu goro yi nekk fi tante yi nekk fi bàjjen nekk fi doom ji nekk doomu ñëpp léegi àdduna bi ñuy dund dañuy dund ci ay appartement ak ay kër yoo xam ne daanaka jëkkër ak jabar lay doon ak ki ñuy dimbali mhm. soo waree bàyyi sa doom te mu am ñaari weer rek day indi ay jafe-jafe ndax xale bi xëy na boobu noonu tuuti na tuuti waay boo xam ne laaj na surveillance loolu moo taxoon jigéenu liggéeykat yi ci syndicat yi ñu commencé benn waxtaan boo xam ne yaakaar nañ ne bu gënee law ak gouvernement du Sénégal ak kër yi nga xam ne ñooy joxe xëy yi dinañ mën a fexe ba nga xam ne jigéen ñi dinañ leen yokkal congé de maternité ñu gën a mën a toppatoo seen doom ba ñu dëgër surtout que bu ñu nee état du Sénégal dafa ne euh, dañu war a nàmpal suñu doom ak ween kese ba xale bi am juróom benn weer xam nga léegi nga am doom ñaari weer nga bàyyi ko fa am na ay technique yuñ ñu jox waaye bokkul ak toog sa doom fu mu xiifee nga jël ko nàmpal ko 6 heures 7 heures nga wàcc yeeg sa kër ay 18 heures 19 heures xam nga de loolu mënul ànd ak ngay jox sa doom ween foog nañ ne lépp waxtaan la et waxtaan boobu dina mën a am incha allah ba nga xam ne dinañ def ay jéego jëm ci loolu. jigéen ñi nga xamante euh, waaw loolu jigéen ñi ñuy dàq ndax dañu wan lor wala dañu am doom Sénégal moom daaw ci biir assemblée nationale biy voté loi yi. fa nañ fa ñaari loi yoo xam ne loi 2002 02 la ak loi 2002 03 yoo xam ne le 14 avril 2000 2022 loi 2022 02 ak 2022 03 14 avril 2022 ñaari loi yooyu dogal yooyu dafay aaye képp ku yor këru xëy nga dàq liggéeykat bu jigéen ndax dafa ban loolu moom loi contre la non discrimination la ba pare loi boo xam ne day gën a protéger euh, maternité ëmb ak wasin état du Sénégal daf ko gën a protéger loolu moom ku ko def dañ lay attaqué parce que am na loi boo xam ne da ko aaye léegi loolu moom ay jéego yoo xam ne état du Sénégal jot na ko def pour gën a protéger jigéen ci seen ëmb ak seen wasin mais est-ce que jéego jé après jéego yooyu nemmeeku leen toujours ay cas waaw xam naa cas yooyu moom warta am parce que xam nga loi su amee dañ ko war a doxal waaw te foog naa loi bi moom femme syndicalistes yi xam nañ ko employeurs yi xam nañ ko donc euh, te femme syndicaliste dañoo am taxawaay bu dëgër bu wér ci euh, protéger ak défendre ak ak yelleefu jigéen donc loolu daal xam naa waratul am ci biir Sénégal bu amee buñ ko yëgee jigéen ñi dinañ ci taxaw ñu ci war a taxawee. Alors, Madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Seyna Boumbaye, je suis la directrice des relations avec les institutions au ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Et je suis également la coordonnatrice de la cellule genre et équité du, ministère. Quel est l'objectif de votre rencontre aujourd'hui? La rencontre d'aujourd'hui avait pour principal objectif de réfléchir ensemble dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons pris le thème international que nous avons adapté à nos réalités professionnelles ce qui nous a permis toute la journée de réfléchir sur les mutations du digital qui sont en cours dans le monde du travail pour voir quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, quelles sont les avancées qui ont été réalisées par les différents acteurs. Donc, pour continuer le mouvement, parce que le digital s'est véritablement imposé à nous et il faut composer avec. Pourquoi des sur euh, les opportunités et menaces du digital euh, Parce que déjà, le, monde, notre pays euh, se sont déjà euh, appropriés le digital, mais la survenue de la pandémie de COVID-19 est venue renforcer cet usage. Donc nous avons pu vivre directement euh, les opportunités que le digital offrait avec la COVID-19 qui avait imposé beaucoup de restrictions, normalement en limitant les contacts physiques. Donc, euh, à un moment donné, le slogan, c'était restez chez vous, mais restez chez vous en continuant à travailler. Et les gens ont fait le travail, le télétravail en restant chez eux. Donc, on s'est dit, voilà, ça s'est imposé et on a vu que ça offrait beaucoup d'avantages. Mais également, il y avait des menaces auxquelles on pouvait être exposé en tant que travailleur et travailleuse. Donc, euh, il fallait réfléchir avec les différents acteurs du monde du travail, donc pour avoir euh, une vue plus globale euh, donc de ce que le digital pouvait offrir au monde du travail. Mhm. Ah, alors, on, a vu récemment des femmes lancer un plaidoyer pour avoir un rallongement sur le congé de maternité des femmes. Alors, vous, au niveau, vous êtes femme, au niveau de votre secrétariat général, c'est le genre et de l'équité. Quel travail faites-vous à ce niveau Oui, ça, c'est une revendication des travailleuses, un allongement de la durée du congé de maternité qui est légitime et qui se comprend pour différentes raisons. Hein. Vous savez, quand vous accouchez, vous avez huit semaines après l'accouchement. Huit semaines, ça passe vite. Vous laissez un bébé à la maison, un être très fragile, vous reprenez avec toute l'affection qui lie une mère à son enfant. C'est un moment où l'enfant tombe malade. C'est difficile. Donc, c'est dans un, disons, mouvement mondial. Et c'est tout à fait normal que les femmes puissent revendiquer. D'autant plus que notre pays a décidé de l'allaitement exclusif au sein pour une période de six mois. Quand vous êtes une femme travailleuse, vous êtes obligée d'être au bureau à 8 heures, bien qu'il y ait une heure d'allaitement qu'on peut prendre euh, souvent en deux tranches ou en plusieurs. Mais si vous voulez allaiter pendant six mois, alors que vous prenez deux mois après votre accouchement, il y a des problèmes, il y a des contradictions. Donc, nous revendiquons un allongement de la durée du congé de maternité. C'est un débat et peut-être les réglementations futures vont, s'y pencher. C'est juste pour que nous puissions nous occuper encore davantage de, de nos enfants. Vous revendiquez pour une durée de combien pour le moment, je sais que le mouvement global revendique un mois de plus, mais ça, c'est dans le cadre de discussions avec les employeurs aussi, parce que nous savons qu'il euh, il faut préserver l'outil de travail. Nous revendiquons des droits, mais ces droits-là ne pourront exercer que dans le cadre euh, où l'outil de travail est préservé. Il ne faudrait pas qu'on expose l'outil de travail. Donc, un mois supplémentaire, ça fera l'objet de débats, peut-être entre les employeurs, entre l'État, entre les organisations de travailleurs et on verra ce qu'on pourra avoir. On a tendance également à voir des femmes en état de grossesse. Euh, dans la plupart des entreprises, elles sont licenciées en état de grossesse par manque de productivité. Excusez-moi. Euh. Alors vous, au niveau de votre cellule quel travail, faites-vous également Le ministère, je suis heureuse de vous dire que le ministère du Travail a porté deux projets de loi qui ont été adoptés en 2022 par l'Assemblée nationale, qui renforcent la protection de la maternité. Donc, il est désormais formellement interdit à tout employé de licencier une femme en état de procès. Ce n'est plus possible. On a réglementé, peut-être que c'est relativement récent, mais c'est deux dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale le 14 avril 2022. Mm-hmm. On ne peut plus licencier la femme.